jërëjëf mbokk maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar pël bu rafet Albourakh Events Lamine Seck li TV série maman mais maa lay ziar. maa ngi lay fay. moo daan sa loxoon ci soos la. ci boolu la nekk soos est-ce que ci mbaxal mu tooy. ay dama gis ne xaw ma sedd bi la xaw ma da xaw a jël poids quoi. waaw surtout loolu. kon gars yi balaguñ. wala nu demee noonu. ah comprendre ma de. xel mu dal de mën na lu ne. ceebu sa door bi la. diwlin sa bi ak ceeb bi waa léegi naa am na ataaya waaw ak ndox ak macaroni sa door man <laughs> dama pat sa door waaw ataaya bi nu mel parce que man duma naan duma naan ataaya ataaya bi daal lu la réer si jasmine rek mu ngi ci bi amul café café sa door léegi mu ñëw waaw inchallah mais eh, yaa ngi si jàmm sant naa bu baax kan moo lay sañseel Moustapha Darame Kandji Socé kan moo lay sañseel Moustapha moo sañseel moo génn fii ça va joor la ne joor joor joor maa joor kii sama xarit la ndeysaan kii kii sama jigéen la di ko ñaanal gudd fan ak wër di ko ñaanal alburax mu nek mu nekk raw si télé te nañ ko bàyyi xel nañu bàyyi xel ki nga xam ne moom mooy pël bu rafet parce que elle a toutes les qualités yoo xam ne tey mun a diriger émission mun a diriger émission mooy lan mooy am sañ-sañ mooy am courage mooy ñeme plateau bi ngay toog ñeme invité yi ngay invité te loolu loolu yëpp mu ngi qualité yooyu yëpp mu ngi si moom donc daal nañ ko ñaanal rek nga xam ne tey émission bi mu yor ne yor tey fële ci alburax yàlla boole si émission yi gën a màgg fii si Sénégal kuy fëgg kenn fëggul <laughs> ah est-ce que amul ñuy fëgg nga boloke <laughs> wala kee ma kenn moo daan sax xam nga gaa yaa bañ nag kenn fëggul da ubbi <laughs> te li ma jaaxal xoolal dee nga uti jëkkër waay waay waay dee ngeen maa ba man du seen ceebu kër du seen ndoxu kër ma kenn xatalu ma kenn jëkkër yàlla moo koy maye wala wala boo wax ma fu jëkkër am waaye bàyyi leen ma waay man bu dee sëy mus bu ma ko waxati Lamine loolu jaaxal mais mais maa lay est-ce que est-ce que daa xewoo. nee na ziar yaa ngi si jàmm. sant yàlla baax alhamdulilah. waaw. toujours Wélma la Wélma. toujours avec Wélma. mais macha allah chemise bi rafet. merci merci borom Colobane moo fi jaar Diop Xaas. Diop Xaas Mara. non borom Colobane Diop Xaas bu as VIP sop waaw. mais chemise bi moom ak li ci des Velma. Velma boutique la biir de bi waaw. ani waa Lutte ñu ngi fi ñu ngi si jàmm. lu di waajal. ah li ñu waajal. le 4 février. ak suba. 4 février suba la grosse fils de Balla le 28 le 27 le 21 janvier ñu daal lamb bi ñëw rek ñu waajal. 5 mais am na lamb yoo xam ne da ko engagé di ci liggéey. la. am na lamb yoo xam da ngeen ko engagé di ci liggéey. waaw lamb daal ñun daal lamb yëpp ñu ngi ci nee na comme li rek boo nekkee partenaire Lutte TV ñu ngi ci say lamb boo nekkul partenaire lu TV ñu ngi ci say lamb ci say lamb dem uti ay contenu des suñu devoir waaw waaw. ani Beuz. Beuz mu ngi fi mu ngi si jàmm. kañ lay ñibbis. ah fii xam naa fii ak décembre rek décembre 2024. 2024 waaw. ok wala 2025. non décembre 2024. ok ba léegi di ñëw mais noo gisee làmbu yaaram aar bi tey. macha allah làmb ji moom lii bettu ma ci moom yow mii bettu la ci ndax xam naa ne xamoon nga ne Baba Jaxal ak Ibou Afia dañ koy neexal waaw na neex nii neex na nii waaye na neex ba ci combat bi rek waaw. kontaan naa si yow. demal combat ngi ci géew bi. combat ngi noonu ci digg géew bi Lamine Seck. c'est que am na combat mais day day day waaxu adversaire yi Aïcha nee na day waxu adversaire yi parfois kookoy Lamine Seck Seck ndaanaan moo ñëwoon ginnaaw mbokk yi Boy Plateau lañ jàkkaarlaal Omar arbitre sifflé na raak dina am de raak bu raf de raak day am de séntu naa ci raak Seck ndaanaan arbitre toogal e eh, mépp na ko dóor Seck ak Plateau eh tënk na ko daan na ko ramassé na ko daan na ko wala walla walla am naa lu ma gis de Seck ndaanaan daan na Boy Plateau Seck ndaanaan Seck ndaanaan daan na Boy Plateau da koo ramassé Plateau déet bul tekki ñaata victoire nga tegle bul découragé de ñaata victoire nga tegle voilà lii laa lii la bëgg gëj ngaa daanu yaa fi daanoon Yanda yaa fi daanoon Bombal yaa daanoon xale bi nga xamante ne mooy Papa Siteu yaa fi daanoon yaa daanoon macha allah lii rafet na kaay leen waaye sekk ndaanaa ngi noonu lim bëre ci mbapat wane ko ci lam wane ko ci arène arène amagul sens donte mi ngi daan nag mais jafe-jafe bu ñëwee nangul yàgg-yàgg jàpp ndal moo ci tege kaay kaay sekk kaay ndaanaan kaay ndaanaan kaay sekk ngi noonu ba combat ngi noonu ci digg géew bi Lamine Seck Seck plateau am na combat mais day day day waaxu adversaire yi parfois ay ca nee day waaxu adversaire yi parfois kookoy Lamine Seck Sekk Ndaanaan moo ñëwoon naaw mbokk yi Boy Plateau lañ jàkkaarlaal Omar arbitre sifflé na raak dina am de raak bu raf de raak day am de séntu naa ci raak Sekk Ndaanaan arbitre toogal e meb na ko dóor Sekk ak Plateau tënk na ko daan na ko ramassé na ko daan na ko wala wala wala am naa lu ma gis de Seck Ndaanaan daan na Boy Plateau Seck Ndaanaan Seck Ndaanaan daan Boy Plateau da koo palaato Plateau déet bul tekki ñaata victoire nga tegle bul découragé de ñaata victoire nga tegle voilà lii bëgg lii bëgg gëj ngaa daanu yaa daanoon Yanda yaa daanoon Bombal yaa fi daanoon xale bi nga xamante ne mooy Papa Siteu yaa fi daanoon yaa daanoon macha allah lii rafet na kaay leen waaye sekk ndaanaan a ngi noonu lim bëre ci mbapat ne ko ci lam wane ko ci arène arène amagul sens donte mi ngi daan nag mais jafe-jafe bu ñëwee nangul yag yàgg jàpp moo ci tege kaay kaay sekk kaay ndaanaan kaay ndaanaan kaay sekk ngi noonu